mel na ni jitaay bi li nu ëmb moom ab somp sax duñu ko fi mën a tuur ndax bis bu ñu ko tuddee Cheikh Ibra war naa am ak yaatu ba ñu xam ki ñu tuddee ki bis bi mooy kan rawatina nag ñaari rakkaayu Serigne Touba defoon tarakaay yi bari lool ñu tànn ci ñaar di ko def te ñu mën ko wutal firnde naam yooye jamono bari na ñu doon julli waaye ñaar rakka yu Sëriñ Tuubaa yi ëpp na doole rakkaay yi bari yi ndax ba mu koy julli ak jot amul woon aw fit amu fi woon te moom aman nag dal waaye boo déggee discours bi ci bat yi ñu ci wax ci ngay xame ni yeyoo na ko dem na ba wax la ni la raama rasulillahi min ilahi kaw ni xadimoo abdallah mooy bi min u kama xaal ridwanullahi alayhi raama rasulillahi min ilahi yaakaar naa ni ñii ñaan audience ngir bëgg a gis président ak ñi président bëgg a gis ku ciy jëkk a gis président ah ma ne kii ñaan audience ngir bëgg a gis président ak ki président bëgg a gis laa ne ku ciy jëkk a gis président yonant bi la ñépp di xënte woo gis bay jëfandikoo ay tur yu ñu wax ni ku koy def ku ne bala nga koo def ñeent fukki guddi di nga gént gis rasulullahi te gént gis yonant bi alayhi salaam daraja la dañu ne ku ko gént gis bu yomal xiyaamee di ngeen bokk jataay te ko bokk ak bi jataay dinga egg ci yàlla yonant boobu gaa bëgg a gis nag Sëriñ Tuubaa moo ni moo sàkku ca yàlla man ma nekk jëwriñam ci lislaam kookee bu fekkee wax na loolu bu amul jëwriñ tol toll ni maam Cheikh Ibrahima Fall wax ba day deñ li ko waral moo di li mu bindoon ci xasidaam boo seetee doxiinu Cheikh Ibra moo ko jëfandikoo boo demee ca muqaddimatul amda fi masayal mixtaa salla wa sallama alli il fata sëriñ nee na ca kàllaami wa niyaati wa fihli tawajjaat ñu ne fan mu ne ilaa kafaani soo a wa durra wa sakka gis ngeen ku ngeen gis muy nit cër yi lu mu bari bari ñett képp la nit amul lu ëpp ñett mooy li ngay wax ak li ngay jëf ak li ngay yéene te mënoo ko sëriñ Touba nee na ku dul yonant bi alayhi salaam maa la gën a bari wax gën le la ko ku dul yonant bi alayhi salaam maa la ëpp jëf gën le la ko ku dul yonant bi maa la ëpp yéene gën le la ko mu ne boole naa yépp nag danga ko ko jox yonant bi addiya ñu ne waaw yonent bi boo ko joxee li nga looy am mu ne yonent bi feesal na bi ko yàlla ne yaa ma neex ku may ñaan ci yow lay jaar mbaa duma ko may doyan na ko waaye loo ko yéene mu teg ca lu ne toll delloo waa yonent bi fegal na ma yett yoo xam ne man ngeen cee teg seen bët yett yett yooyu ban ak ban la Sëriñ Tuubaa ne yonent bi fegal na may ñaaw téef bi ma laataay jóge Mbàkke Jolof jaar jeewal jaar Luga dem Ndar def fa lu kenn ñemewul ma dikk Ndakaaru defi lu kenn mënul ma dem ci géej gi juróom yettaat yu manqué tuuti musuma laaj fu nu jëm musuma jàmbat aw mar mësi suma pigir kenn mësu koo foroote musta naa ni sëriñ bi xooju fi ay reen joxuñu ko añ ak reer ñaanul am ndox mustafaat waxtu te musta julli tiim musta mer ba busule di saaga mbaam yi mer mu dem ba jekkoo ñu defe ne day jekkale mu jéggale ñibbisiwaat andiwulu liggéey mu ne kafaa suu'a fegal na may ñaawteef lu ñaaw lana xëpp nañu ko ci sama kaw waaye bu pënd bi wuree rek sama biir gën a baax lu bon lu ne def nañu ma ko waaye indaale wu ma léegi yàlla fegal na ma it sikki sàkka sëriñ bi ne du ma dugg ci lu ma xamul lu muy jur lu ma ñaan mu nangu lu ma dàq mu dem lu ma ñoddi jot ca isaa katabtu aw xaraxtu arfa ustumu nan tuuda u saakal arfa loolu sëriñ bee ko bind kon bu toll nii nekkee nii ñaari rakkaa rek ñu di ko màggal at mu jot ca ndar ak ci ndakaaru te bu ñu nee ñaar rakkaay nu mu ko defee woon ñu man la ko wax bu mën a na am bu ji ñu wutal ñaari rakkaay keneen am de ñaari rakkaay Serigne Touba rek ngay dégg ñu di ko màggal ca ndar di ko màggal ci ndakaaru ba Serigne bi julli ca biroom ndar ña nekkoon ca biro ba ku dégg dama ne newu fa woon xanaa sëriñ sa ñépp sëgg mu di ko kàbbar julli sëlmal te loxul mu joxoñ baaraamam ni fer yi ana ko nu ci soxla woon kooko xamul kan mooy borom ndar ci ñoom mu dikkati ndakaaru def fa li nu tolloote ñii di ko màggal di woo jullit yépp jëwriñam jii di Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridine di maami sang bii toog ak rakkam di Serigne Cheikh Astou Ndiaye Fall moom la maamam ànd nag Serigne Touba dem ci géej gi mu ne Sambalaw ba Ndiaye Sambalaw ba Serigne Touba nee na ko Touba bi jàpp ñu man maa la jàpp dama bëgg nga xam man a kan waaye Touba bi jàpp la yow te ba mu ko nee da ngay ñibbi ci la ko wooy ko kay ñibbi bi mu defee noonu kii mooy maami kii toog. di sëriñ Cheikh Ndiaye sëriñ Cheikh Ndiaye Fall dañu koy dàkkantal ci way juróom bu jigéen Cheikh Ibra moom day kenn ci kër sëriñ Touba da di as gor soppi boppam jaam mën a jàng te du làkki arab bari doole te du xeex góor yu te du tiitaru mën a lëggi am wërsëg sa li gën ci moom jox sëriñ Touba. Cheikh Ibra daawul tooñ ku ko tooñ mu jéggal la moo daan yendoo liggéey dafa naa ne sikar boo dee gis sëriñ mu lay bu so ni ko xat baaya as sayxa xidman xaadiman fatinan yabqi ridaau wa an u yamilul kulafa wa faahu isdroo zaminu muntasirun fa ahkama nasma bi taqdimi muxtarifa te nag Cheikh Ibra nag raqaaw ñu ne yan jamono mu ne min ba'di ma rabba umut ifuhu sëriñ Moulay Bousso dani te mooy doomi sëriñ Mbàkke Bousso mi fi rawoon numéro mu fi bàyyi woon ci montaru bant moom la waxtu woowu la waa Touba di julli ba tey te sëriñ bu Bousso nekk na fa Cheikh Ibra du faat waxtu Cheikh Ibra du julli waxtu ñu mën a la jëf sëriñ Touba kenn du weddi morom ma kon dañu maandu ci mbirum Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall yow mi mu xëy ba jant so añoo bu tax nga defe ne ndakaaru dañoo dëñe yaa añul am na ñu desal bay maye noonu la mbirum suñu borom mel sëñ ma bu so dëni xat baaya a sayxa sëriñ bi jaayante na ak sëriñam Cheikh Ibrahima Fall xit man jiital ko ndànk te fakkatalu ko Cheikh Ibrahima daawul lañ masala daawul laaj fu muy xëy daawul laaj fu muy gont daawul jàmbatub xiif daawul jàmbatu mar xaadiman fatti nan liggéey bu ànd am xel xam nga dañoo defee ni dafa dof ndax booba li muy def nit ñi xamuñu ko doon asgor soppi sa boppaab jaam te kenn forcé wu la ngay yendoo liggéey di fanaane tudd yàlla di root ndaay di bale kër gi sant fal di wuyoo màkke ñu ne daa wirul ndekete daa jëkk wér ndax daa xam fi ñuy jariñoo mu wëlbati ko teg njëm sëriñ Tuuba te jaawaliw koog dara xaadiman fatinan liggéey bu ànd kam xel lu Baay Faal liggéey koo jox mu jël te kenn du ko defaraat kon Baay Faal a gën a nite ci jamono Baay Faal a gën a yeewu ci li yeew ci li gën a bari ndax Cheikh Ibra xaadiman fatinan liggéey bu ànd akam xel liggéey boo xam ne bu ñu sikkaree ñàkk tooy xib boole ko kër-kër bu ñu noppee boo xoolee ciy rek nga ciy teg loolu mooy xaadiman fatinan waaw lu tax mu di ko def mu ne yab xiiri daa u da doon sàkku ngërëmal sëriñ Tuuba wa an u yamilul kulafa mu yenul ko mbooleem lu war a metti aw yaram gis nga ak wilaaya àggul ci boobi borom wilaaya du taxani boroom wilaaya du ràbbi sàkket di ko defal boppam Serigne Touba céeram diggante ak boromam fu mu jaar yàlla sangee ko ku ko defal li jëmmi nit mënut a ñàkk Cheikh daan bopp moo daa rabbi per moo daa xaddi néeg moo daa doge koñ moo daan rooti moo daa taxani mattum jalambaan moo garan bakkanam digganteem ak Serigne Touba ne nañu ko wekk mbaa saa bakkan jóge fi te loolu Seydina Omar defe na ak Moustapha Seydina Omar bun Xataab ba mu duggee ci lislaam dégg nga ni ko sëñ Tuubaa waxee xat adaba naasa turran bi udaa wa adaw bi adiyihi wa bi isnin min ulam saar omara yar nit ñi ba ñu xam fu ñuy yeb Moustapha omara jëkk ni ko doxati ne Moustapha benn loxo ma dagg ko ko toog moom tàllal tànk ma damm ko ku ko dànd woo ko ma duma la néeg bu mu nekk ku ko ca fekk te woowu la ma duma la ndab li muy tiim nañu ko baag moom bu noppee nun xaj yi nu xab loolee Cheikh Ibra ko ñaareel ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon bu ñu fa bég hmm. waaw lu tax lu toll nii nga xam ne moo gën ci mboolem lu làmmiñ di wax te bu ñu ko waxee ñu ne sikkurullaahi Baay Faal hmm. Hmm. barke Cheikh Ibra Fall. ñi nga wax. xam na ko. laay laay la laay faal. ah laay laay ko nag maami seexal mbay góor yi. ah bamba reer jaam wuñu ko moom. walaay bu doloon moom bu doloon moom benn sëriñ du lekk addiya bu doloon moom doo gis kuy gëm gëm lu. gëm gu sax gu wér Cheikh Ibra ko indi bokk na di ko ca roy Cheikh Ibra képp nga mat ni moom la ñuy roy waaye Cheikh Ibra kan ngeen defee ni moom lay roy moom yéen ñëpp laa ko laaj koo xam ku Cheikh Ibra roy kenn la Cheikh Ibra royul aw defee nam da koo ëndaali ci sëriñ Touba Serigne Touba attan ko man koo defal lu tolloog li muy def ba Cheikh Ibra jiitu góor ñi amul werante mbaa dégg nga kon Cheikh amul morom kii mooy sëtam ak yarakam kere bi sewaa ndar dikkee ci sëriñ Modou Amin Tafaal radiyallahu taala anhu ñi ko dañu bëgg mu ñëw ndar da leen ni duma mën a dem ñetti yoon la ñëw ba ko ñeenteel mu ni leen man ni may mën a deme laa leen bëgg a wax ñu ne ko ah mu ne bu may dem damay tàggu sama kilifa te mu ñëwee dinaa ko ni ñëw na te dajeeb mbooloo togg lekk naan soo waroo taal tasaaroo tubaab yee nu ko dàq fop te duma def ne tubaab yi waa ndar ni ko loo bëgg mu ne bu ma tàggoo saab sëriñ bu ma ñëwee war na maa am lu ma ko ne lii laa jële fa ma deman ñu ne ko sa xol dina sedd ba ñu demee ba ba yeewi ko dañoo jox sëriñ bi lu am solo mu dikk jaar fa sëriñ Saliou ne ko lii laa doxe woon sëriñ Saliou toftat ci ay cant yoo xam ne bokk na ko ña ko joxe woon sëriñ Cheikh Astou Ndiaye mii sànq la ko Cheikh Makhtar jox emblon bu am solo waaye moom itam loolee mu Modou Fall defan moom lay def bu demee ci loxol sëriñ Cheikh Jëmb Fall la koy tegaat mu jox ko Cheikh Mountakha Mbacké mi sëriñ Touba mu teg ko fu mu dul yàquleeti liggéey la murit laaj baaxoo bu ñu murit nag ki ni tijaan la ni bokkul ki ni xaar defe ni bokkul ki di layeen defe ni bokkul waaye koo ci yër mbindam koo ci yër mbindam la muy mujj wax mooy murid yi rek boo demee ci mbindum jawaahirul maani bi ñu wax ni Cheikh Ahmadou Tidiane ko wax dégg nga mu ni ana xutbatil anaam wa ujjatil islaam lu mu ca teg mu rabbil muridin wa mursidi salikin seyxil wasil wa xutbatil kaamil jabaru sunnati wa diin kon murabbil muridin kon moom murid la woo mais wowul tiijaan tiijaan kun la mooy mi ngi mel ni dik diw mi dëkk parcelle waaye murid la woo ci yàlla la jëme jaam ñi Abdul Xaadir Jilaani lu mu wax walaw laa rasulillahi bil uhdi saabixan la axlaxtu bunyaanal jaimi bi ismati bu ma rusuloon rasulillahi sama maam damay tëj tëj sawara ubbi àjjana ñépp dem àjjana benn yoon te du am bakkaar kooku sët la ci lay gaa yi bu fekkee da ngaa mënut a gént ñiy dem aras a ngi fi mbaa dégg loolu boo amul ngént gént neel mënumaa gént waaye am na ñuy dem aras boo yenn ci dëkk bi di wut banque tax ngay jooy am na ñu am lu baree bari ba mën a nelaw noonu la àddina demee Serigne Touba amul moroom moo tax mu am Cheikh Rafal amul moroom barke Cheikh Modou Falilou Fall Cheikh Ibra amul moroom ci monde bi. Serigne Touba moo bind Cheikh moo jëfee déglu ma wax la fi sëñ Bamba bind daa wax ni wakkun la daa sayxika kal mamloog tablux bi i darajatal muloogi bu fekkee da ngaa bëgg a doon ab taalibe bëgg a gëm-gëm gu lay jëriñ boo toogee fi sëriñ bi danga ngaa war a mel ni jaam bu ñu jënd dangay ngay sukk bu jekk te Cheikh Ibra ko jëkkee not sa bakkan ba mel ne noyyi woo loo am tamu baax nga jox ko sëriñ bi wuyoo santam toog sa sant neneen teg ko ca kaw toog fa suuf mu jaral la sa bakkan ñu ne boo ko defee loo ci am sëriñ Tuubaa ni la tablux bihi darajatal muluki di nga fa amee dara darajey buur te doo am bàkkaara buur Cheikh Ibra as gor la woon daa a takk ndomb tànk di yeew di yiwi mu sànni googa di raamal sëriñ tubaa ñu ne ñàkk na tey nag ku sant faal Cheikh Ibra ci ngay faloo mbaa sa faal kenn du ko faale am déet ma ne ku ni faal laa sant boo askanawul ci Cheikh Faal kenn du la faale am déet Cheikh Ibra Sëñ Tuubaa dellu waxaat déglu la muy bind dani yow da ngaa jébbulu nga ne waaw mu ne loo bëgg nga ne ko pajuk aajo mu ne la fajeel aajo yi sëriñ bi noo ko déggee da ngaa nga ne waaw mu ne loo bëgg nga ne paju aajo mu ne la fajal aajo sëriñ bi boo fajee aajo sëriñ bi sa aajo faju nga ne teg ne ko nu may fajee aajo sëriñ bi mu ne la waq de awa ija lahoo ma ifta ñu ne di naan mu ne bil basli wal xidmati mastatahta fajal aajo sëriñ bi nga ne ko ci nan ñu ne li nga yor ci sa poos dindi ci jox sëriñ bi ci sa teeyug bakkan am nga doole liggéeyal sëriñ bi feeg yaa ngi dund moo tax Baay Faal amuñu temps amuñu waxtu amuñu bis saa su ñu ngi fuglu ndigal la jóge sëriñ Tuubaa ba ñu song ko te bu ñu ko songee daan ko Baay Faal noonu ma dégg loolu moo tax lu ñu song daan ko mu ne wax di awaay ji la umma istabil basri wal xidmati mastataxta nga xam ni kon liggéey jox sëriñ bi yelwaan dunde gis nga yelwaan ba ko Cheikh di def daaw ko xëyee di ko gonte Cheikh da daal liggéey te li mu liggéey moomu ko sëriñ Tuubaa bind na ko al muridu man laa yamliku shay'an wala yamliku shay'un takunu muridan suma fiika iradatun góor a taxawal mu taxaw mu ne Ceerno ma ne ko Mbàkke mu ne wàcceel buddil ma gooñu gerte ma xool nee mu buddi génn mu xool daan ni alhamdulilahi rabbil alamin na kat gerte gi tagal na ma ne ko waaw faal nee mu daal di ciy dagg benn xool li ko daal di koy seex moom Serigne Saliou nee ñett ñaari yoon la sàqa mi ñetteel ba mu buusu ko xaaxtandi ko daan ni auzu billahi mina seytaani rajim ma ne tekk di ko xool mu ne maa ngi bëgg a mos lii may liggéeyal sëriñ Touba te moomuma ko te bàyyi Cheikh Ibra de daawu ko def ba xoolal fa mu jëlee repère gis nga fii mu ne ñi fi tekki dara xam nañu ne Cheikh Ibra amul benn doomi sëriñ Touba ju def Cheikh Ibra morom amul ñoom ñëpp nangu nañu ne bu dul woon moom musibaam kon noonu bu keneen contre Cheikh Ibra lu muy safe waaw ma laaj leen benn point bala maa bàyyi benn point rek laa bëgg laaj. waaw kay. la ilaha illallah. waaw la ilaha illallah. la ilaha illallah. waaw dama ne. dama laa koy laaj. ndax xam naa ne addinaa dégg. dama ne yéen lay laaj lii may wax. kan moom kan moo ci xam ku sëñ Bàmba ragalan ci kaw suuf ah yàlla la ragalan neel benn ku sëñ Bàmba bëggoon ba mu tee ko noyyi yonant bi rek am déet diggante ragal ak bëgg fi la nit ne li mu ragal ak li bëgg sëñ Bàmba yàlla la ragalan yonant bi la bëggan wax na ragal yàlla lu muy jëriñ fa ay suma taxaf illaa akal ahad yaxaf ka min xaw fi kaxu kullu ahad sëñ Tuubaa ko bind boo ragalee yàlla te muy dëgg nit ñi danañu la bëgg ragal la te duñu ko sañ bañ ndakaaroo ngi nii ak feneen dañuy dajale seen xaalis lu ñu bëgg yëpp ko Seex Muntaxaa boole kook ay jooy te duñu wax seen soxla jox ko ambalo muy nangam milliard mbaa ay million luñ cey teg mbàkke yàlla na nga fi yàgg boole kook jooy jóg di dem ka jox di jooy te la nga ko jox nga xeeb ko koo bëgg la waaye ñimewu ko am det ragal yàlla ngoo ak bëgg waaw léegi na kon mu wax nag ni ma an ma abatil muxtaaru sayiduna ubbil maqaani wal ahlin wal walada dama bëgg rasulaay bu bëgguma alal mu dem ba am li mu bëggoon jaxasoog yonant bi taribtu bi anni kayisun bintibaihi wa anni rayyaanun bi asfamiyaihi sëñ tubaa ko bind sëñ bi waxantuwul kenn du ko waxal lenn moo ko wax am déet moo ko wax te loo defe ni waxu ko yaar képp la sëñ bamba bindul man a yàlla ana man a rasulullaay moom nee na yàlla ko bind ñu ne waaw mu ne nee na rasulullaay jëriñam ñu ne waaw mu fixé nag ne ku yàlla mii ma bind doo rasulullaay mi tax ñu bind ma bu dara jaam rëy bu ngeen di ko làng leen mbang ma nga ca gannaaw te amaana sore na ma sax far barke Cheikh Mourou Bam sëñ Tuubaa amul moroom bu ñu dee tëkkale rek péex mee tax waaye tubaab baa ngi soriwul man sakka fi saalika fal yu jarra bi wa man yu jarra bi tubaab bi ku ko ni yàgg na lee ni ko yàggatul ah buur mokk leen sëñ bàmba rekk ko fi not daa not buur yi not sëriif yi not jaraaf not sëriñ si wëlbati ko taxaw kenn sëqatul tubaab bi tëgg góor mokk leen dóor nga ndënd kenn waxul mu dóor beneen galan kenn waxul Cheikh si Ahmadou Bamba jóg bañ mu ñetteel mu yëkkati loxoom bu sew ba tubaab bi séen ko ni ko loo bëgg mu ne ko bu mu dal dangay ngay jaaye te jar nga tubaab bi xool ko ni ko ah, laaj ma ñi ma fi dajeel mu ne ko dama laa bàyyi ba nga duma ñi fi man man nar laa duma bëgg ne mbët bu ne jëkkee na daje bu ëllëgee koo wax mu ne ak man dama lay ba ba nga man ñi fi man ma door laa duma tubaab bi xool ko ni ko dangaa tuuti mu ne ko sa tuut waaye daj naa jamono tubaab bi doo nga a sëgg sëñ bi ne ko gaaw nga mu ne ko noo bëgg mu ne ko nu dem ba fa nga ëppee doole mu duma la fa bëgg ne mbëtt sang la ca dex ga takk la ak der dellu si la Sénégal woote jumaa woote ak màggal defar ñaari jumaa wëlbati ko am sañ-sañ ci yàlla te kenn du ko mën a faj Cheikh Ibrahima Sikar ah dama ni yëf ay yëfa nekk ci biir dégg arab taxut amuk wilaaya bari ràkka taxut amub cër ci yàlla yàllaay def li ko neex yonent bi alayhi salaam jaamuwul yàlla ñu door koo tànn daa neex yàlla mu tànn ko am déet moo neexaat yàlla mu def sëriñ bamba nag sëriñ bamba mu neex ko yàlla boole ko Cheikh Rafaal mu di kiimaan moo Cheikh bu mu nu mu mel kon sëriñ Tuubaa du càkkaayu ah ba ñu nee sëriñ Fallu Mbàkke radiyallaahu taala anhu illa yaxaat dala uman lam yakuni wala yakuna abadan li mumkin ni moom mu leen naa da ngeen a gaaw a jaaxle waaye am ngeen gis ngeen ko ba noppi ñu ne waxtaan mu ne tàmm leen ci ma ndax di ma gis feneen ñu ne ko amoo feneen mu ne Baye Cheikh Ibra amul feneen di Baye Cheikh Ibra mii amul feneen ku am Cheikh di moroom sëñ Bamba kenn mënu ko am mbaa di ngeen loolu kon Cheikh Ibra kon nan la ko Serigne Touba doye ginnaaw du julli du woor te sëñ Bamba dàq julli jullikat yi moo dàq woor moo gën a ragal yàlla moo raw jàngkat yi moo ëpp fit borom fit yi moo leen ëpp doole moo du ma fi man bu ko ànd ak Cheikh Ibra du julli du woor te mu fekk moom jamono mënu ko woon ne bama mbaa nga julli am déet waaw lu mu koy dee laay laaj ko bu ñu warul woon a ànd du ko ci baax nit ñi nañu maandoo maandoo amatul ci diine waaye bu maandu aman loo gisati te mënoo ko am xamoo ko nga maandu ca tani jell ba dégg ngeen loolu kon faal ma déggeen